asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi fi taw ñëpp maa ngi leen nuyu te di leen bége bége gi nag li ko waral li yàlla def sëñ Fallu Mbakke da ngeen xam ba noppi nangu ko moo leen tax dindi moo leen ku ñëw dindi rek dogalu yàlla tax te loolu yàlla na koo xam rek waaja nga loolu moo tax ma di leen bëgge dafa nag waxtaan wax ne wi dama koy def defoon naa ko fi sax waaye dama koy defaat ñuy wax naan wax waxaat du bari wax bëgg li ngay wax ñëpp ñëpp ñu dégg ko bu baax rek la waaye lii ma waxoon te di ko waxaat moom mënees na ko wax téeméer yoon ndax ndigal la loo xam ne lii dafa jóge ci sëñ Muntaxa jëm ci ñëpp rek muy ndimbal muy ndigal loo xam ne lii da koy jox waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ yëb yi bu mu sëñ Fallu mu mi jiite Tuubaa ca kanam muy jëmbët ay garab ci corniche bi corniche bi wër Touba yàlla dogal nag sëñ bi boole ma ci loolu lépp nag bëgg maa dimbale ndax ku ne xam na ne waa kër maam Cheikh Rahim Fall yi lu sëñ bi bëgg bu leen ko waxee danañ ko def ni mu ko bëgge kon keneen comme ci boole rek du laa bëgg dimbale muy dañuy jëmbat garab yoo xam ne yi day wër corniche bi nday joor a càmmoñ bu boobaa ñi nga xam ne ñooy eaux ñoom danañ ko teewe te ñooy jiitu ndax yàlla dafa dogal ñoom ñu xam liggéeyub garab dañ ko xam bu baax ba tax na dañuy jiitu di wane garab yi li li ñuy dànd tali bi garab gu nekk itam ak moroom ji ñu xam diggante bu ñaata mètre lay doon loolu loolu loolu la waa soofaree def ndimbal ndigal li mu taaxa la nuy ñaan bu baax sëñ mu taaxa yàgg fi ndax bu fi yàggee di nu digal sun dimbal day gën a bari rek ndax digal lu mu nu rek ndimbal la moo tax yàlla na fi yàgg téwér ah, yàgg fiit baax na dëgg naa ko firi fii démb sama mbokk la wax na dëgg nee na yàgg fi dafa baax bu ko defee nuyit yàlla nañu fi yàgg ndax nee na yàgg fi dana waral boo nekk ci safaan ba boo fi yàggee sax mën nga caa génn boo dee boo dee nit koo xam ne da ngay boo fi yàggee sa jubal dana yokk mu doon jëriñ moo tax yàgg fi baax na lool suñ mun taxaan ku ne xam na ne dum mu digle rek njariñ la njariñ nag buñ la ko di buñ la ko buñ la ko joxee jarul waaj lay tax nga am lay tax nga am nga am njariñ la bul ko waaj da ngay daal rek moo tax maa ngi leen ko yëgal yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne da ngeen doon samay da ci man may seen jëwriñ ak mboolem ñi nga xam ne waa réew mi la ñëpp rek tey samay xarit xarit nag mooy koo xam ne kii li nga yéene sa bopp moom nga ko yéene loolu rek mooy xarit moo tax danaa ci boole sax xale yi réew mi samay xarit lañu ndax li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene moo tax euh, ndox mi ñi fa dugg nañ ko bàyyi te toog rek te xam ne yàlla buñ toogee te te te bañ yàkkamti yàlla dana leen dimbale ndax yàlla ndimbala mu ngi ci géej gi mu nga mu nga fa ñu jëm mu nga fi ñu jóge kon nañ toog rek fi ñu ne fi ñu te te te yaakaar yàlla te gëm ko léegi nag liggéey bi dañ ko fas yéene tàmbalee ca rond point boobee ca yoonu Mbàkke booy dugg Tuuba foofu sant may taxaw foofu lañ koy tàmbalee rek jëm penku ba wër bi ba del si fi ko tàmbalee woon maa ngi koy yëgal ñëpp du aajowul nag ñu yónnee fenn oto ndax dañu dañoo fu nekk dañ fa nekk bu ko ñu nekk fañ nekk nañ dagg paas ñëw rek bu ñu nekkee ci dëkk boo xam ne bii itam nag ña fay jógee dañuy takku ñoom mën nañoo wutal seen bopp oto rek mu mu ñëw lool daal laa leen woon ma wax leen ko yàlla nu ci yàlla dimbale bu baax baax a baax jërëjëf waaw la le le trente di gannaaw suba yi rek ku mën a fanaan samedi na nga fanaan si yoo xam ne mënoo fanaan samedi it dimanche huit heures huit heures neuf heures na la fekk waaw ndax liggéey bi dañoo bëgg mu mu mu mu mu gaaw te rafet ni ko suñ bëggee li ma leen ci wax nag moom ku ne xam na ko ku ne xam na ne sa ñam di sëñ am di sëriñ Modou moom la ko sëñ bi wax ne ko na ko wax njabootu maam Cheikh Yoro gépp li ma leen ci wax nag xam ngeen ko gënuma leen ko xam dana leen Baay Faal yi bu leen sëñ bi waxoon ne nañ ko def ñu def ko ni mu ko bëggee kon keneen ku mu ci boole daf laa bëgg dimbale rek waaye ñor na yi ñu bàyyi géej gi ñuy dugg te toog fii ñu ne te yaakaar yàlla te xam na bu ñu toogee rek ak seen gëm-gëm yàlla dana leen ci fekk dimbale leen seen gëm-gëm yàlla dana leen ci fekk dimbali leen man nag dama yàgg bëgg xale yi ñu yàgg doon samay xarit. loolu moom ku ne xam na ko. xam nañ ne xale yi samay xarit lañ mës a doon. fu ñu mës a toll. fu ñu mës a toll ci loo xam ne yaakaar naa ne gënul ci ñoom. danaa leen ca fekk. samay xarit lañu. mooy ki nga xam ne li nga yéene sa bopp rek. moom nga leen yéene. loolu ñëpp la. kenn ku nekk kenn kay sa xarit. kay sa xarit. mooy ki nga xam ne. la nga yéene sa bopp la nga rek nga ko yéene. loolu mooy xarit. baax na jërë ngeen jëf. jërëjëf mbakke kon mbokk yi ndigal laa ngi noonu. dégg génn ni ko sëriñ bu waxee mu bàyyi ko ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak yaram ab toogaayam jekk lool yéeneem rëy lool ni mu taxawoo njabootu sëriñ Touba gi itam taxawoo ko lislaam mat sëkk mu jëm nag ci sëriñ Amdu Modem benn Fall xalifa général kullu Baye Fall waxoon naa ni bu fekkan foofu rek la yem kenn du ci jiitu Serigne Abdou Karim ndax ku ne xam na diggante Serigne Falilou Mbacké ak maam Cheikh Ibrahima fal waaye ku ne xam na diggante Serigne Abdou Karim ak yoonu murit yépp rawatina nag njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye jaare tem ci Serigne Abibou Mbacké mi nga xamee ni moo jiitee Touba ca kanam yaakaar naa ne bu jëmoon ci moom doy na sëkk ngir Serigne Abdou Karim waaye nag Serigne bi yeble ci Serigne Abdou Karim jox ko ci ndigal. moom itam nag mu jóg fas yéene ànd ak soppe yi ak xarit yi ak wëllëre yi ak am di jàmm yi kon mbokk yi ceebo mu ngi nii moo xam ne ci tooy na xëpp lépp lu ci waay ji dana jebbi te dana naat te danga ko jëriñoo képp koo xam ne si mos ngaa toog am soxla wala yitte sa xel daj ndindi daj sëriñ Abdou Karim sëriñ bi nee na ma ngi lay woo. sëriñ bi itam ni mu koy faral di waxee moom day jàpp na ni ndigal lu mujj ñëw ci moom rek ci la sunu aajo di fajoo moo tax ndigal lu mujj ñëw ci moom da koy fas yéene ànd ak ñëpp musta dugg ci lenn nag te ànd ko ak ñun kon ma ngi tàllal loxo ñëpp ni mu ko waxee tam ku ne xam na ne njabootu maam Cheikh Rafal lu sëriñ bi yónnee ci ñoom dara mat sëkk waaye nag bëggal ñu taw tawfiq moo tax sëriñ bi yaatal woote bi moo tax itam sëriñ Abdou Karim yaatal woote bi ma ngi séentu ñëpp nag na ñëpp ñëw fanaan ci samedi ku mënta fanaan ci dimanche na nga teel a ñëw boo dikkee toog fa ci ndigal jëfe fa ci ndigal ba ndigal jëlee la fa nga tàllal say loxo ñu ñaanal la nga am ci pajuk aajo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu